lii nag ay xibaar la jëm ci wàllum mbas mi ndongo bi nga xam ne dafa ñëw ci ekool bi tesante mu yëg dara ci yaramam matuwaay yin war a jël ci moom moo nekk nii jëwrin bi nga xam ne moo nekk ak moom dina ko jottali jëwrin bi nga xam ne moo yor mbas mi ci ekool bi su ko defee jëwriñu daara ji dina woo waajuru ndongo bi balaa moo ñëw ndongo li dinañ ko ber ci benn bërëb bu nekk ak ki kay dimbale ber boobu nag dinañ ko takkal mask moom ndongo bi ak ki koy dimbale tamit dinañ ko takkal ñoom ñëpp ñu takk mask ci benn ñu xaar waajur yi ñëw bu demee ba nga xam ne waajur yi jël na ndongal ba mu dem ñibbi seen kër fa mu nekkoon dinañ ko fomp ba mu set ñu désinfecté ko tamit def si lépp bërëb ba mu nekkoon gannaaw bi ndongal li ñibbee këram bu demee waajur yi dinañ war a jokkoo ñi nga xam ne mooy pédiatre bu xale bi mooy docteuru xale bi wala bu fekkee ne mag la ñu jog toog docteuram pour wax ko ci biir wér gi yaramam fu mu toll su ko defee pédiatre boobu di docteuru xale yi wala muy mag muy docteuru magam dinañ laaj mu def test saytu mbas mi bu noppee ñu wax ka département bi nga xam ne moom mooy seetu lépp ci mbas mi departement boobu dina ko def test mbas mi pour moom loolu moo aaju ci li nga xam ne ndongo li ñëw na école ba am lara loo xam ne yëg na ko ci yaramam ki nga xam ne moom mi ngi këram ba pare yëg dara ci yaramam ndongo loolu dafa war a toog warta ñëw ci école bi dafa war a toog warta jàng ci ay waajuram danañ war a jokkook jokkoo pédiatre bi muy docteuru xale yi wala bu dee mag docteuram ngir leeral ci wér gi yaramam bu balaa booba nag waajur yi tamit dina jottali waa école ba lu tax moom jàng si wut ngir wér gi yaramam moo tax ñëwut mu leeral leen bu ko defee docteur bi wala pédiatre bi moom dina laaj tamit mu def test saytu mbat mi mbas mi département bi nga xam ne moom moo yore mbas mi moom tamit dina def test boobu ci ndongole yi nag ay xibaar yu am yu am njariñ la loo xam ne képp kuy ñëw ci école bi war nga di ko bàyyi xel ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.